mën a demal seen bopp waaye tamit daat leen di tàggat ci nan la ñuy lijjante ba mën a am seenum xëy ren ji nag am na lu toll ci mille demandes ci ñoo xam ne bëgg nañoo participer ci édition 2021 bi niki démb la ñu doon amal atelier training bi président Mbagnick Diop daat nay lu bu baax a baax forum du premier emploi ndax nee na ba ko commencé ak léegi def na ñaar fukki at ak benn yéen a kaay gi di réew ko di nee na en tout cas li am ba des mooy forum du premier emploi ñoo ngi koy waajal 10 février jàpp 11 février yéen a kaay gi di l'info bàyyi mbir moomee wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ak parti socialiste journal bi li mu gis mooy parti socialiste jamono ji tekkitul dara ci réew ndax mbooleem fi nga xam ne baasu parti socialiste la woon a jamono ji ñàkk ko yéen kaay gi de na ñi nga xam ne ñooy coalition wàllu Sénégal ca diwaanu Pikine daan nañu déposé li nga xam ne mooy ab recours ndax ñoom dañoo njortu ne waa Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg a li nga xam ne mooy élection yi ci département bu Pikine ni ki ne ñooy waa Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Déthié Fall demoon Sonko nee na lii lépp Macky Sall moo ko planifié waaye nag am na loo xam ne xeex bi du yomb ñun ñëpp ñoo ko war a song te Macky Sall na ñëpp xam ne tàppet la Ousmane Sonko moo ko wax nee na élection yi Macky dañu koo dóor ba xëlam ko mu jóg naan kenn gañëwu ko yéen a gi du l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu bu ñu waxante dëgg mooy opposition bi maanaam ñoo ngi teg pression pouvoir bi dañu koo ërte la Aliou mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi ministre nee na dafa na yërëm na ki nga xam ne moo njiitu réew mi di président Macky Sall journal bii de nag Macky Sall du jamono ji maanaam moo sànq Idrissa Seck ci lu jëm ci wàllum politique ba Idrissa Seck ñàkk Cees gi nga xam ne musu koo ñàkk dafa mel ni lii lépp Macky Sall moo ko planifié waaye nag bu ñu waxantee dëgg Idrissa Seck ci boppam jamono ji mën nañoo wax ne Macky Sall duyeetu ko dara à tout moment Macky Sall mën naa tàqalikoo ak moom Idrissa Seck nag bu doon ab limon la journal bi nee na Macky Sall daf ko nal ba mu jeex tàkk yéen kaay gi de Libération ñu xëy fekk fa Pape Demba mi nga xam ne moo nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar ci département Serigne Boub gagné ko fa Pape Demba Bitèye moom nag tuumaale Serigne Boub ah. nee na bisu élection yi Serigne Boub dafa àndoon ak i xaj yoo xam ne xaj yooyee la ay militant daal di ragal moom Pape Demba Bitèye nee na bëri na ci ay bureau de vote yoo xam ne li tax samay militant voté wuñu fa ba ñu dikkee dañoo fekk Serigne bu pa ah ak xaj yu bare bare bare xaj yu ko doon garde waaye nag ñoom ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar daan nañuy def ab recours ah. yéen a kaay gi de la ñu jamono ji njàng meeg njàngale mi demul ci nga mbay laara dafa gàllankoor ñi xam ne ñoo ci yëngu jamono ji njàqarek tiis moo leen tugg waaye nag élèves yi ñoom ñoo ngi sàkko ñu daal leen di bàyyi ñu jàng ngir nag seen programme yi ñu mën koo yeggalee yéen kaay gi di réew mi quotidien ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi ñoom nag sàkko nañ ci état mu daal di lijjanti mbir mi balay année balance di am yéen kaay gi di vox populi waajuru ndongo yi ñoom nag nee ñu léegi négociation yi ñoom dañu koy fekke ndax ñu mën a xam lan moo xew yéen kaay gi di réew mi quotidien la tribune le soleil le quotidien xëy nag di ñu xibaar nan ñu ca diwaanu Guinée Bissau niki dému nag ab coup d'état la ñu fa doon amal coup ba nag daal di la ji journal journal bi nee na Omaro Sissoco Embalo dafa daal di waaye nag moom njiitu réewum Guinée Bissau daat nay wax ne jamono ji ma ngi si jàmm lépp waaye bëri na ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéen a kaay gi nee na Union africaine di CEDEAO di ONU ñoom ñëpp ñaawlu nañ bu baax a baax coup d'état bi nga xam ne moom la ñu naroon a amale ca Guinée Bissau yéen a kaay gi di Dakar Times nee na en am ba de sala ak lii ne mooy a ne bu xëcc la yokk li nga xam ne moo jëm ci wàllum coopération d'information ak renseignement ba pare nga xam ne mooy ay patrouille journal bi di Dakar Times daan nay xëy wax lu leer nee na Sénégal di Gambie di Guinée-Bissau nañu waaj yéen kaay gi de Les Échos xëy dañu xibaar naan ñu ak Burkina Faso tey jii la ñuy fubal bu 19 heures jotee yi ca Coupe d'Afrique bi nga xam ne mooy xewee ca diwaanu Cameroun Aliou Cissé moom nag daat nay wax ne match